Garga Senior Garga Senior maa ngi koy yobante waaw capitaine bu ko jàppee dina xam ne lépp la capitaine xam nga capitaine fii sel fii dem bisaan waaw waaw moom day xaar moo Garga Senior non bébé uus Garga bébé Garga bu bu bu bu parcelle bu tàncee Fodé ba bàyyi bu jàppee capitaine ba bàyyi ko alxuraan day xaar xam capitaine maa ko seetaan keroog ci signature bi mu naan ñun ay malfaiteur lañu di bandi bandilu yow doo malfaiteur sax yow capitaine yow doo malfaiteur yow. malfaiteur la nag ñun ay malfaiteur lañ. malfaiteur la. moom day xaar. parcelle la duggoon may ma tuuti. may ma xam nga benn taas bi mu am si carrière am. benn defet bi mu am ci carrière am parcelle la duggoon Talfa moo ko faxastal dugaat na parcelle. mooy loolu. Talfa dama mooy waaye ah, rawaas bi dina ko jël. Talfa Talfa ak Garga ñoo bokk benn benn benn écurie ñooy contact kon instant bi Talfa jël na caabi bi jox na ko Garga. jëlaat. Talfa Rawas bo yóbboo nga waj lolou yow Talfa. kon Fodé Mbissane mi ngi waj grand combat. Mbissane mi ngi waw mi ngi waj bu bax bii moy su ma bi moy premier grand combat. li moy deuxième grand combat do wa deuxième. mu wara a wara def effort. mu wara def effort waw te bu soobe yalla dañuy jabe garga dañ koy faxas. tamit guerre la boy meuna beurele a bëre la ay jelu yu reuy lay dan daw daw daw la dan Ndomar jóge ci dan dan capitaine bu bu bu yeen euh, ki non ay dara ay dara mom la mujjé dan grand combat dan ko jël bu reuy rakati rakiji ji euh, rak ji lamb ji wërngal këpp ban mbër moy sa idol lamb ji man lamb ji oh, sama papa moy sama idol sama papa këti de mooy sama idol sa papa moy sa idol avant avant ñu ñew ci question réponse instant bi da nga am combat instant bi hmm. instant yi dama am combat sama diggante ak boy ref boy ref ngay bëreel boy ref bu caaroy geej boy ref bu caaroy geej mom lay bëreel may wara war mom bawal di le 12 bi di ñew lay doon. le 12 mars wa le 12 mars lay doon fa bawal rew maaw ma ci jox ñepp rendez-vous di si woo àddina nag bàyyiwuma kenn waa réew xam nga waa jambacin waa tembo waa seew waa caacaw waa njon waa kër yaalaan xam nga waa njaan waa mboltoo ñëpp bàyyiwuma kenn mbeje wallaay talaay maa leen si woo ñoom ñëpp di leen wax loolu seen combat la ngeen dooli jàpp bu baax a baax baax xam nga di di si woo sama pataro mu gën a jàpp mu ngi siy jàpp bu baax baax a baax a baax a baax di si woo sama papa yi ak sama maam yi sama maam yi maa ngi leen si woo bu baax a baax a baax a baax a baax seen combat la combat bii du fekkee bëgg nga dégg dëgg a ah, bakkan bi laa si teg nekkul combat boo xamante nii combat moo war a perte la lu leer laa lay wax nii booy ref ma lay wax nag waajal bu baax a baax a baax man bëgguma bëreek yow xam nga tey jii gars yi naa booy ref indiwut état wala ni wala naa demal nga liggéeyi. booy ref demal nga liggéeyi am nga combat de dof bi nga am du xalaat borom firib biib lu leer xam nga man firib biib laa doon bëree mais combat bi mën ta ñàkk a xeex il faut que nu xeex maak booy reef lu tax mën a nappaate non loolu wala instant bi mi ngi napp booy reef ay booy reef boo mënee nga liggéey man maay borom prib dib su ma la jàppee dama lay da luy loolu yow mënoo bàyyi nappaate booy non nappaate wu ma li nekk si man laa koy wax combat bi il faut nu jihaad man ak moom grand combat la xam nga danoo war a neexal gars yi danoo fay xaaj bu weex tar ma ak moom nar a def lu métti lu métti laa wa teg lu ko góor ma sa teg lu ko góor ma sa teg laa koy teg yaa ma de maa ngi ñëw maa ci waas maa ngi ñëw foofu maa ngi ñëw foofu maa ngi ñëw foofu <laughs> boo leen waas ne leen waas gis nañ Seydina ne leen nañ Seydina maa ngi ñëw foofu jox la dem li mooy supporter ah. li mooy mafia mafia bi gis nga ñii mafia bi Washington boobu nuy wax ba laaw a jàpp dama ko bëriloo ba mu bàyyi barke sëñ Bamba dama ko barke sëñ Bamba ba laaw a jàpp ngaaw man na ko seede barke sëriñ Bamba deuxième round nga ko yaa fekke sama kanam nga billaay waaw da ko duma daan ko sa waay yankaaw yankaaw numéro moo daan Wassintor waaw yow yaa da waas barke Alxuraan da duma daan ko billaay da ko bëri ba waas mooy loolu ba naane ndox ñëw mu xeex ak moom daan ko jël daan de waas de mësul daanu ci arène bi mu ngi ci trois xaw ma quatre combats autant de victoire. non deux li ma de wax nii li ñu def bawal defagunu ko Dakar. boo ko defee Dakar ñëpp xam ne yankaaw du numéro deux de carrément te lu ko raw laa fas yéene pour def ko Dakar barke yàlla. li nga def bawal lu ko raw moom nga fas def Dakar. te bawal guma fa. bawal pare parel fof parel fof parel fof non non oh, xol xol bàyyi leen foofu gars ku lay jox commande la jox fi ngay bëree. dama bëgg nga déglu ma ma lancer ben message man bawal guma ko baye ndax parce que du ma du ma du ma rek ñoom noo tax. mais mais yéen waru leen bëri ci seen biir yéen bawol bawol yi waratu leen bëri ci seen biir affaire bi xoolal affaire bi xoolal drapeau bawol ñëw Dakar fii représente ko. yaa ngi may dégg mais tey yow boo bëree bawol bawol foofu noonu nga daan ko kooku ay supporteram bu ñu la bañul mën nañ la jàppal dara yaa daan seen mbër booy bëree duñ la supporter mais yéen ñi boo leen booloo doon benn ñëw fii Dakar di ko représente booy bëree supporteru keneen ak keneen ak keneen mën nañ déplacé wu ñëw yokku la doole te loolu day tax nga nga teel a jóge ci benn niveau bi àgg ci beneen niveau bëgg nga wax Sidi déglu ma ñun nag lool du dara si ñun ndax parce que nee naa Mor Kanka carrière bi ñuy bëre noonu gën a nekk champion fuuf Mor Kanka boobu moo ma gën a nekk champion carrière boobu moo ma gën a nekk champion noo gën a nekk boo ref champion carrière ndaanaa nañu noonu waaw gis nga carrière numéro un carrière numéro te gis nga ñoom ñaar ñëpp dañoo bëre du jee jeen instant ay jaam la ñu message boobu laay laacé loolu laay laacé kii nii booy ref maanaam moom noo bokku ndey ak baay mais làmb la bu jeexee bu jeex na gars yi xam nga rek danoo gars yi danoo xool ba xam ne man ak moom combat lu fi nekkul combat duñ ko doox xam nga tey jii duñu jël sama avance di ko jox ngaaka mi nga xam ne ni nekkul mbër ñun nanuy comprendre si benn côté boobu noonu ñun noo bokku nday noo bokk baay sëñ Bamba nay rafet man booy def génnewuma ko lu dul jaamu mooy loolu mais nag li ma la mën a xamal moom le 12 le 12 moom le le 12 mars moom booy def loolu lépp dama koy jël tege ko nee du boobaa boo def damay yaakaar dugg si sax gars yi duñ ma xamee le douze li may waajal la douze yaa ngi napp booy barke la Fallou Mbacke li may waajal lu ma mas sa indi si lam le douze lañ koy gis laa mu ji wërngal këpp ban mbër mooy sa laa wax wax sama papa mooy sama idole kati mooy sa idole kati deux mooy sama idole sa papa kati deux bu école de euh, euh, Cheikh Mbaba moo si moom dong laay roy mooy sa idole billaay walaay aw ma dara lu may question suivante bi lamb moo fi daax bëre lamb ji kaw ba suuf ban mbër moo fi daax bëre sama papa moom laa jàpp ne moom. non fi ne instant bi sa papa bàyyi na bëri ñi fi ban mbër moo fi daax a bëri. ñi fi nekk Tafatine moo fi daax a bëri. Tafatine moo daax a bëri ci làmb ji. waaw pour man pour man moo fi daax a bëri carrément. Tafatine yow léegi la waneetu léegi la nekk si si làmb ji nu naan mënta bëri day dóor day dóor mais jël bu ne daan na ko fii doomu aadama jël bu ne daan na ko doo xoolee contre ma jël ba mu mujjee daan eh, eh, Yékini Junior eh, oh, oh, a ah, ah, stade Amadou Barry. waaw jéem a tàkk digganteem ak El Hadj Diouf. Mhm. yaa ma gën a xam digganteem ak Boy Sey. xam nga ne ñooñu ñëpp bëre la leen daane. am ñëpp dafa dikk taxaw bëre ak ñoom jàngal leen bëre daan leen ñibbi. xam nga nag mais lam yenn saa yi dangay ngay dikk tey combat bi mu leer na ne la laaj mooy dóorante amut arrêt. nga dik def ko. Tafatin moo dàq bëri ci làmb ji. Tafatin pour man moo dàq bëri ci làmb ji. limal ma limal ma juróomi mbër ci làmb ji Tafatin ak kan ak kan ak kan ñoo dàq bëri ci làmb ji. pour l'instant nii nii nii nii nii nii. naa ne si si la bokk. Tafatin bokk na ci juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji. Mor Kankang jàpp si ñooñu la bokk. Mor Kankang mbër yi dàq bëri ci làmb ji. jàpp naa ne fils de Kati si la bokk. fils de Kati bokk na ci juróomi mbër saaka joor saaka joor bu caarooy ndigal saaka joor bu caarooy ndigal bokk na ci juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb waaw jàpp naa ne kenn dàqu koo bëree trompeur de jàpp naa ne kenn dàqu koo trompeur bu école Cheikh Mbaba bokk na ci juróomi mbër yi dàq bëri ci làmb ji question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi dàq xeex mbëru fi dàq xeex hmm. man jàpp naa ne fils de Katy kenn daq ko xeex xeexam da koo dëggalagut si laam da koo feeñalagut si laam fils de Katy naa ne kenn daq ko xeex moo dàq xeex ci lamb ji man damay taxaw man di wax loolu man man dama ne fils de kenn daq ko xeex si laam ji wallaay talaay man dama gis ne xeexam da koo wanagut si laam mais combat bi jàpp naa ne an liggéey na si loo du dikkee ak sox de jàpp naa ne day xeex limal ma juróomi mbër yi dàq xeex ci lamb ji fils ma juróomi mbër yi daa ko xeex ci làmb ji nga jox ma euh, fils de Kati ak Kati waaw njaaxum njaaxum bokk na ci juróomi mbër yi daa xeex ci làmb ji kéwal kéwal bu bokk na ci juróomi mbër yi daa ko xeex ci làmb ji roi des arènes Modou Lo bokk na ci juróomi mbër yi daa ko xeex ci làmb ji Boy Lo Boy Lo bu bokk na ci juróomi mbër yi daa ko xeex ci làmb ji question bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi gën a ñeme entraînement mbër bu fi gën a ñeme entraînement la bon man moom sama bopp laa jàpp ne man maa. yow yaa ngi loos maa ngi loos ñun ñëpp ñu ngi loos yow bokkoo ci kan nga jàpp ne moo gën a ñeme entraînement ci làmb ji. instant yii nii pour l'instant nii du ma doon jox jota ki fi gën a ñeme entraînement am Mor Kankang laa koy jox. Mor Kankang l'espoir invaincu jusqu'à présent des Bawol Bawol moo gën a ñeme entraînement ci làmb ji. waaw pour l'instant nii li li ma tege nii non man dama gis muy daje ay coono yu meti coono yu métti si waru entraînement gisee ni mu tolloom wallaahi dooleem da koo ëpp. gars comparanu comprendre nu loolu si moom barke suñu maam man dama bokk ak mom entraînement ba tey xam nga muy weñ muy souf lepp lo ci dem ak mom rebo la du bàyyi Mor Kankang mo gëna a entraînement ci lamb ji limal ma mi mbeur yi gëna a entraînement ci lamb ji Mor Kankang ak kan ak kan ak kan Mor Kankang boylo bobu mala wax boylo bu bawal boylo bu caaroy ndigal bokku na ci mi mbeur yi gëna a entraînement ci lamb ji waaw Sa Thiès Sa Thiès bu caaroy ndigal caaroy bu eh, Sa Thiès bu caaroy ndigal eh, bu caaroy géej bokk na ci juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji waaw ñëwal njaaxum bi ñàkk yara njaaxum bu école de Cheikh Mbaba bokk na ci juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji waaw bala luur bala luur bokk na ci juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji question suivante bi làmb ji wërngal këpp ban mbër moo fi ëpp fit mbër bi fi ëpp fit fit man la bokkoo ci yaa ngi loos ban mbër moo ëpp fit ci làmb ji pour ku képp fit ci lam ji. kan a naw ci fitam. Saa Kajoor kenn ëpp ko fit. Saa Kajoor man bu caaroy ndigal. dof la dof la kenn gënu koo yéeme ci Saa Kajoor bu caaroy géej ak caaroy ndigal. waaw kenn yéemu ko kenn moo ëpp ci lam ji pour man. Hmm. waaw waaw ndax parce da koo wane ma gis. dama ànd ak moom fépp maa ko doon toogal ci mikaay temps booy bi ma nekkee booy. du bàyyi du rekale barke sëñ Bamba da doon bëre ba sonn ma jàpp ne kii dafa soon ma koy jox ndox mu ne ma demal toog sonu ma di daan di daan ay ndaanaan yoo xamante ni booba ñooñu noo ngi Dakar di entraîné moom entraîné wul question suivante bi limal ma juróomi mbër yi gën a ñeme entraînement ci làmb ji mbër yi ëpp fit ci làmb ji Saka Dior bu caaroy ndigal ak juróomi mbër yi ëpp fit ci làmb ji fils de kat yi kenn fit fils de kat yi bokk ci juróomi mbër yi ëpp fit ci làmb ji ki sakes bumag sakes sakes salif ساخو salif ساخو sakes rakou balagay numéro 2 دومو دوبالس بوكو نتي جورومي مبار يي اب فيت سي لامج واو balagay 2 balagay 2 Omar Sakho alias Balagay 2 ancien roi des arènes bokku na ci juroom mbeur yi ëpp ci lamb ji question suivante bi rak ji damay genn fofu ah rak yow sa walu bop bi nga dalé beuré sa carrière ban victoire mo la gëna neex sa carrière non essay ni ni ni ni ma tollu nga dalé beuré mbapat ba arène ban victoire mo la gëna neex sa carrière sama combat ak mën naa ne amaguma sax combat bu ma neex bereguma ndax defaguma dara si laam. mais yi nga jotta a yi nga jotta a passé ban victoire mo la ci gëna neex. sama combat ak ambulance. digënde ak ambulance. waaw moma ci gëna neex. victoire bi la gëna neex sa combat bu ma gën neex ci la bok ndax parce que ñepp dañ ko jox favori ñepp dañu jàppoon ne mënuma kaa daan. ñu bari dañ ma umlé won waaw ma dem daan ko. ban défaite mo la gëna metti sa carrière. sa ben yalla dogal na ben défaite la ma sa am sama combat ak Deko. Deko waaw dama joom dama dig waaw carrément combat bu ma metti bi nga dalay seetaan làmb ba tey ban combat nga dem stade seetaan ko wala nga toog jàkkaarloog tele bi seetaan ko mu marqué la ba mënoo ko fàtte maanaam combat bi la gën a marqué làmb ban combat la. combat ma gën a marqué ci combat ban combat la. combat trompeur bu mag laa la wax de. ak sama papa kati de. bu caaroy mbooloo ak sa papa boobu wala. suur du ma ko mas a fàtte suur boobu reeru ma. trompeur daan ko. wallaahi dama jooy barke Serigne Salim Mbacke laa la waatal. suur boobu loolu moo ma gën a gën a gën a dugal si laam wallaay dama jooy men mag dik ndaysaan jox ma ndox mhm. na ma muñal muñal gis naa la ngay am looy def li nga nekk noonu continuer si doo si continuer incha allah sa papa li mu bàyyi si laam mën nga kaa jëli te wallaahi loolu du ma mas a fàtte si sama àddina billaahi sa papa trompeur bu caaroy booboo la gën a marqué ci làmb barke Alxuraan làmb moo ma si gën a gën a gën a gën a métti combat trompeur kati deux trompeur kati deux combat boobu moo ma si gën a métti ndax sama papa boobu waajane nu ne mais xam nga rek làmb moom moo waxul dëgg rakk ji bëre fit entraînement gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci làmb mën a bëre am fit ñeme entraînement ak am gàllaaj ban moo ci ëpp solo ci làmb man jàpp naa ne mën a bëre moo si. bëre mooy pay. bëre mooy pay. Hmm. deuxièmement ban mooy pay. ban mooy pay entraînement mooy pay. nga ne bëre léegi nga ne woon entraînement. entraînement mooy pay. mooy pay. waaw. bëre fit entraînement gàllaaj ban moo jiitu nga ne ma entraînement. entraînement mooy pay. yow yow boo gisee mbër bu ñemee entraînement da nga koy naw. dama koy naw. Hmm. carrément dama koy bëgg. mbër du su ma demee stade mbër sumeku rek formam rafet mu entraîné musculam génn dama koy bëgg ndax damay jàpp ne kii. ma xam ne kii daj na ay coono yu métti barke yàlla dama koy bëgg même du ma ko xamul dama koy yéene ndaam barke yàlla damay xam coono bi mu daj ba tey ci question réponse yow nga war a bëri ji sa jour combat ñu wala téléphone ne la euh, yankaaw dafa am règlement bu bees bu wàcc ñu ne la yow sa bëre sa fit sa entraînement sa gàllaaj ñeenti yi ñu ne la ñett yi nga yóbbu làmb ja nga baay fi benn bi wala doo bëre ban ngay bàyyi ak ji ñu ngi nekkoon ci question réponse ah booy booy toogal wala nga dem waay what's up maa nag ñoo ngi nekkoon ci question réponse ah kon daal bëre fit entraînement galaaj ban moo ci solo nga ne ma ne la euh, nga war a dem làmb ja ñu ne la ñett yi nga yóbbu nga bàyyi benn bi bëre bi fit bi ngay bàyyi nga ne galaaj bi laay bàyyi si gaale bi mystique bi laay bàyyi bëre bi fit bi entraînement bi ne la nag lan moo tax ba mënoo bàyyi bëre bi non bëre bi mënu bàyyi ndax parce que man dama juddu rek bëre nekk si man lu tax mënoo bàyyi entraînement bi entraînement bi mënu bàyyi ndax parce que entraînement mooy lépp doo amul entraînement doo demee do am dara lutax meuno baye fit bi fit bi meuno mo baye do ñemewul do démé di nga bëgg def ben action sax mais da ngay tit sa fit du la may lolu lérna ba tay ci question réponse rak ji damay génn ci lamb ji duggu sa vie privée da ngay sétane football football football mom li dama koy sétane mais li ma larma ba larma lay sétane football walu wax bari wul mom d'accord série sénégalaise yi ban série moy sa série préférée lan moy série série sénégalaise yi maanaam théâtre yi ay ñom podé Marichou ay ñom infidèle ay ñom Karma ay ñom Euh, famille sénégalaise wiri wiri yooyu de temps yi may jàng daal doon naa ko seetaan mais instant yi ma toll nii moom ban série nga ci daan seetaan bi sumb luy jooyee foofu noonu ah, waaw wiiri wiiri doon naa seetaan waaw mook seexu moom doon naa leen seetaan waaw mooy sa coob sa plat préféré lan yii yaasa oh. yaasa <laughs> yaasa waaw xoolal dama ne la mooy sa plat préféré mu ma ii boobu noonu ndeysaan oh yaasa yaasa moom koo bëgg sama xool foo sa diggante ak lan moo sama diggante ak sama yaay dafa mën a toog yaasa te dafa ni ndeysaan dafa xamoon ne dama bëgg yaasa bilaay walaay saa yu ma jaay woon ba dig rek muy toog yaasa oh. maa koy dagatal soble bi <laughs> oh. sa plat préféré carrément yaasa mooy sama plat préféré kan kii way ma kontaan dëgg dëgg dëgg dëgg non papa coon moom dama koy dégg mu ma yóbbu fu sori carrément mooy sama woykat kan mooy sa comédien préféré ban comédien ngay seetaan reetaan ba génn ba fàtte sa sa journée comédien lan mooy comédien comédien yi reetaan lu yooyu noonu kan ga ci gën a waaw ah gars yi comédien Saneex Ñaŋ waaju baax euh, euh, Mari Njaago yaa ngi may dégg waaju baax moom dama koy seetaan dama koy siifur di waaw damay reetaan loo trop mooy sama comédien préféré fan moo la gën a neex ci Sénégal ban koñ ban quartier ban gox ban dëkk ban bërëb fan moo la gën a neex ci Sénégal Sénégal fi ma gën a neex ci Sénégal Gueule Tapée gi ma dëkk waaw Gueule Tapée neex na ma trop mm. wax dëgg si bawal bu dee bawal moom non fépp Sénégal laa wax fan moo la gën a neex ci Sénégal Sénégal bi ma si gën a neex mooy bawal bawal réew maa woo réew maa moom lu ma am rek réew maa moo ma ko gënal. foo am bawal ak sa dëkk réew maa moo la ko gënal. lu ma mën di am rek réew maa ndax foofu man mooy sama lépp lu ma am mooy sama fierté lu ma am rek foofu laa fas yéenee yebu ko bokk ko ñoom. foo doon tukki fan ngay dem ban réew moo la gën a neex ci àdduna bi. tukki te kay yaa ngi may wax nga ma nag lu ma neex. boo doon tukki fan ngay dem. fu may dem Espagne laa bëgg a dem. Espagne. waaw dugg du ma rêvé dugg Espagne. ba am lu ma jàllale ma jàll yeneen dëkk yi si des. waaw ndax may wax ak yow moom da xam-xam Espagne lay am instant yi sama xam ma demee si yeneen réew na du ma ko mën. Espagne aussi am nga fa ay mbokk. waa Espagne na sama waa ma yeewoo gis samay mbokk rek sama xel daal mais ma fa demee. xuma fa kenn. comme temps laa fay demee da ngay rêve dem Espagne waaw na ko yàlla na yàlla sottal lépp question suivante bi rakk ji instant bi ni may wax ak yow ah, liggéey tekki dal ci alal ju bari lan nga ciy njëkk def Oh. instant bii nii nga liggéey tekki am xaalis bu bari lan nga ciy njëkk def li ma siy njëkk a def dimbali sama yaay ak sama papa dimbali sa yaay ak sa papa sama papa wallaahi du may rayante rek barki Serigne Saliou Mbacké ñoom noo tax li wàccee coono say wajur moo tax wallaahi talaay pour wàcce sama papa tekki teral leen ak sama yaay ak képp ko si yàlla tudd teral leen bilaay te fas yéene naa ko incha allah si li ma nekk gëm naa ne dinaa leen si teral ñoom barki Serigne Bamba gëm naa ngëm-ngëm boobu noonu moom laa am yàlla moo tam wallaahi talaahi ndax sama yaay dafa sonn sama yaay jàmbaar la sama yaay mënut mais jàmbaar la daal man mënu ma wax sax si moom ndax parce que damay taseek kilifa si mbed mu téye ma si loxo ne ma sa yaay day li mu liggéey sa kër baay wallaahi talaahi doo góorgóorloo loo góorgóorlu si àdduna lépp loo looy yëngu si àddina doo si góor góorloo barke siñ Bamba da ngay am dara instant bii ni may wax ak yow nga xëy un jour ñu ne am nga benn baat ci réew mi loo tere ñu jëlee ko fi lan nga fi jëlee benn baat boo ne li jëlee leen ko fi ñu jëlee ko fi pour la instant yi ni réew mi doxee benn baat boo ne jëlee leen ñu jëlee ko bi moom ambila bi man du ma sañoon ñu jàppale leen ñi ambila ñi ambila ñu bàyyi di sonal ambulant yi marsa ambulant yi non man dama si jaar dama si jaar xam li si nekk wala lancim man ferrailleur la mhm. mais ambila bi dama jàpp ne lu ko gën a métti amul billaay wala ndax dama si dun dama si dun loo xamante ne nii tey jii métti na métti loo xamante ne nii tey doomu aadama bi du ma rombee rek gàddu mbuusam yori bagaasam rek sama xol day sori barke arxuraanu karim ñooñu ñoo may gën a ñoom ñoo ñoo may rom may yëg ci sama xol loo xamante ni tey du fekkoon ne tey jii man may dogal ñooñu dama leen di wutal place wala ma jox leen lo xamanteni dañ si mën a jàpp leen jappalé bu baaxa baaxa baax ba tay ci question réponse rak ci bi nga juddoo ba tay ji may wax ak yow ban jour mo la gëna neex ci aduna ak jour bobu lan nga dund jour bo xam da nga contane xol sedd ba nga yëg ban jour jour bi ma gën jour bi yagul sax jour bi ma sama doomu baye tudé doom jour bobu mom contane na trop trop trop trop trop trop trop trop ak suur yi nga xamante ne nii wax dëgg dama doon janu saa yu ma xëyee gis sama yaay di ko gis si tan suur yooyu noonu dama doon kontaan carrément dama doon kontaan trop. ban suur moo la gën a métti ci àdduna ak boobu lan nga dund. suur bi ma gën a métti si àdduna mooy suur bi ma njëkk a seeti sama yaay gis li yàlla sunu borom dogal si moom sama yaay dafa feebar waaw dafa feebar mais dama gëm ne man incha allah situation yi mu nekk nii. man gëm naa ne man man dinaa ko si génne incha allahu rabi man ngëm-ngëm boobu laa am te ngëm-ngëm boobu ma am noonu tey jii du ma bàyyee njàng bàyyi lu bëri loolu moo tax. ban euh, euh, mbër yi nekk ci kaw mbër yi téye kan nga ciy rêvé un jour arbitre sifflé génn seen diggante ga war a bëre ak moom mbër nekk ci kaw. mbër yi nekk ci kaw. man ñi téye làmb ji pour la instant nii nii nii nii nii nii nii. booy ñaa da ngay rêvé bëreeg Boy Niang dëggul Boy Niang doomu dëggul damay rêvé pour bëreeg moom da ngay rêvé un jour reporter bi ne attention attention Yankaw 2 à gauche Boy numéro 2 à droite arbitre bi sifflé na génn na seen diggante carrément billaay waaye gis nga yër Yankaw lu muy def nii daw yër noonu muy def daf may neex ma ma moom yaa nga wut si na ko booy ñaa sëq na ci génn nga yan saa yi nu jàppante jargand lu bëre yaa ma gën a xam mu fàq ma roof ma mahal ma génne ko fàq mu rom ma wër ko ndooma nu bëre jargandalu supporter yuuxu booy ñaa mi ngi bëre yan kaw mi ngi bëre loolu daf may neex barke suñu waa maa way daan <laughs> ñu ne yankaw boy oh lol, lol, dong laay refi sama da ngay refee bëre booy ñaa numéro 2 daan ko carrément te ngëm-ngëm am te insha rabbi dama def xam nga lan moo la yóbbu ci niveau boobu toll boo ñaa lan moo la fa yóbbu nekk samay entraînement déggal sama staff lu nu wax ma ne noonu la xam nga mooy loolu noonu nekk si yoon bi mu war a nekk rek yoon bi nu may teg moom bi ma sama papa kër teg ak sama staff gëm naa ne duma ko wàccul gëm naa ne dinaa bëri kudul boo ñaa sax si la dernière question dernière question soo nekkul woon mbër lan ngay nekk fu football ngay nekk boxeur ngay nekk waykat ngay nekk lan ngay nekk soo nekkul woon mbër lan ngay nekk. non du n nekkul woon mbër carrément ferrailleur ferrailleur gëm naa ne man ferrailleur lu ma lu ma lu ma mel nii rek pour l'instant nii nii nii nii nii nii nii nii toog leen nii wàcc leen defal ni booy wàccal leen pour l'instant nii du ma nekk woon mbër ferrailleur la lay doon waaw ndax parce que lu ma mer rek ferrailleur ma ko doon. mais benen sport comme boxe wala football wala. wala sa duma ma li boxe lay, lay waaw boxe waaw. yow da nga bëgg ay sport de combat. carrément dama non dama ko bëgg affaire derby affaire góor lu metti. Mhm. bilaay wala dama ko bëgg. ndax man affaire guerrier affaire jambar man lool nonu momay dundal. bilaay wala lolo tax. boo nekkul woon mën nga def carrière en tant que boxeur. carrément lu leer. billaay wallaay te gëm naa ne duma si dugg nit lu raw li ma nar a def si laam lu raw laa laa siy def. jàmm ci yow rakk ji c'est comme si elle de lire série du yem ci benn épisode yow c'est la première fois may déplacé wu ñëw seet si la mais xam naa du mujj tey li man di woon ci question fii laa ko yemale ñu waajalaat leneen lan ngay tàggatoo. di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan. sant ñëpp gërëm ñëpp woo ñëpp ñu ñëw jàpp di sant ñëpp. di gërëm ñëpp xam nga di ñaa di ñaan Sénégal jàmm yàgg xam nga si réew yi àddina yëpp jàmm yàgg fi rawatina Sénégal xam nga di ñaanal ñëpp xam nga di sant sama gaay yëpp aw ma seen fay sama patron aw ma fayam doomu jalaaw ginnaaw yàlla du ma duggee si laam nekk ci laam mën naa ne ginnaaw yàlla moom la xam nga nekkoon naa bawal affaire yi métti sama trop trop sa métti affaire yi métti trop ma dem ba sama xel sax génn silaamu mais tey moo ma teete indi ma fii xam nga tegut ma benn pression it bilaay wallaay fu entraînement jote mu dem ne ma dem demal entraînement xam nga ma dem entraîné ji mooy loolu du ma diggee mu jox ma xiifu ma maru ma raflewu ma barke Serigne Saliou Mbacke benn yoon bilaay wallaay talaaxi xam nga boobu du ma masa a du ma naree am si àddina di ko fàtte wala li ma lu ma nara a am si lam du ma ko ba moom yàlla bu ma ko am barke Serigne Saliou Mbacke bilaay wallaay loolu noonu yàlla bu mu dikk xam nga di sant sama gars yi ñoom ngaa kayin xam nga ñoom daa in ñoom aliwin xam nga sama waa ji <laughs> maa ngi koy sant Pape njaay bu baax a baax a baax xam nga seex bu yanqaaw du ma ko mas a ñoom caatu kombe yin xam nga di sant ñoom moy sin ñoom njaame yin sama doom baay mention très bien ku si mel ni falu Séri Awa maa ngi koy sant bu baax a baax a baax da siy sonn maam Mbaye Sita da siy sonn Baye Bada Baye Jib caacaw da siy sonn bu baax a baax baax maa ngi koy sant bu baax a baax a nga di sama mag Cheikh Thiaw sama papa këti de duma ko massa faté sama papa sama papa sama papa uma fayam barke seigne bamba duma waré béré du lek du nan barke alquran sur rebobu du si lek du si nan day son ndaysan billahi wallahi damay jot avance sax jox ko ne ko am billahi wallahi damay yeureum ne am amagu ngén dara damay jox ne ma jëlal demal nga wuti ci li ngay wuté billahi wallahi day jog di dem ak dolem barke serigne salim moy san bu baax baax baax baax baax billahi wallahi talahi mang koy san bu baax baax xam nga di sant waa réew maaw gépp gépp gépp gépp di sant gaa yëpp sama doom nday ba du guy gi maa ngi koy sant bis de kat yi maa ngi koy ñaanal ndam lu set guy si kaw sooq si barke Seydina Muhammad yàlla sunu borom mën na ko yàlla na ko yàlla sunu borom def sama sama màgg nëfi nëfi maa ngi koy sant bu baax a baax nëfi du ma amee combat ndug meeg yëpp moo koy jënd bilaay walaay maa ngi koy sant bu baax sama taata say joon yaa say joon maa ngi koy sant bu baax xam di sant sama yaay sama mag say joon Say Dione maa ngi koy sant bu baa a da si son di sant Fatou mu gaat ñoom ñëpp maa leen di sant di sant réew maaw képp képp képp képp ku ma tudd sa tur rek wallahi talaahi dama juum maa mbay dumba yin ñoom ñëpp mafia bi bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa leen di sant ñoom grand ibu yin baj seras xam nga sama papa yu ndaw yi ñoom ñëpp maa leen di sant bu baax a baax xam nga Moïse sama waa appartement ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ak sama waa kër Goltapé fi ma dëkke ñooñu noonu maa leen di sant bu baax ñoom ay baay ji lii ñooñu noonu sama papa Modou sama papa Modou Fall maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax da si son si conseil yëpp conseil yëpp mu ngi dikk bilaahi walaahi talaahi seex bu yang xaaw xam nga du ma ma sa fàtte baara yin ñoom baara yin ñoom aada yin xam nga maam mbay sita sita sama doom nday la kooku lam boole wu mu moom depuis ba ma nekkee xale la ba léegi nii xam nga di sant sama maam yi bu baax sama maam yi maa ngi gis taxawaay di leen nu yokku ñaan xam nga di leen wax nu yokk ñaan le douze bii dama si am combat nu yokk ñaan yu baax duñ doon def benn nan ko yokk fukk nan ko yokk fukk xam nga maa leen di ñaanal ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jàmm di leen ñaanal yàlla sunu borom yàggal ma leen yàggal fi sama kanam di leen ñaan yàlla yàggal leen fi sama kanam ba nu fekkee sama njëriñ billaay wallaay tallaahi li may reef yi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp dimbali sama yaay sama baay rek billaay wallaay ak képp koo xamante ni ku si yàlla dugg xam nga di sant mafia bi toog yëpp ñoom ñëpp amal seen waay mbër la mbër billaay day daan kii xoolal nabil soo ko joxee mu bëreeg sa Balla Gaye da koy daan grand mbër mi ngi nii maa la wax lu tuus day daan barki yàlla man la man la Boy Sam damay daan victoire la way victoire la way victoire la victoire la victoire la Formose day daan Formose day victoire la man karamba numéro 2 di sant caatu kombe bu baax caatu kombe mbayin bu baax a baax a baax dañ siy jàpp ñoom wasayin ñoom seex ko seextinin ñoom jaamin xam nga maa fi affaire bi ñoom Souleymane ñoom ñëpp ñëpp ñoom ñëpp maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga waa Riset ama seen fay waa Riset waa marché Sam ñoom ñëpp ama seen fay bi laa war ñoom Babacar Seenin ñoom Papa Ibra Fayin xam nga ñoom Baye Fall bi Baye Laay dañ siy jàpp bu baax a baax a baax a baax bi laa wala ñoom sama papa Baye Badara ñoom kooñ bu ndaw yin xam nga ñoom Lam Soyin ñoom Madine xam nga ñoom gars yooyu yëpp caka-cak maan yi cak-cak maan yi du leen fàtte benn yoon xam nga mafia bi laay tukaar waa tukaar waa tukaar maa leen di sant bu baax a baax waa waa Ficelle xam nga sama grand moo fi doon ceetal dimanche seet bu amul fenn nag xam wësa yi tey cinq palaati ceeb la ma jëndal ma ne ko to xam nga naan ndox yaa ma gën a xam da si jàpp bu baax a baax a baax a baax ñoom seen teraanga in taarwe baay kërim bi maa leen di san ñoom alayin ñoom ñëpp maa leen di san bu baax ñoom gaskelin bilaay ñoom jib sonin xam nga gars yëpp maa leen di san bu baax di leen jox rendez-vous nag le 12 incha allah le 12 mars a a réew ma sama digganteeg ref ref dama leen yóbbante dama bëgg nga xam ne dox bi mooy wax yow xam nga le 12 na nga taxaw dëgër sa bopp gars nu fay xaalis bu weex tàll man ak yow pour man ak yow nu jëflante man nag jàpp naa ne maa ngi soog a am combat maa ngi soog a dugg si làmb sama digganteeg yow li ma si naar incha allah le 12 la le 12 laa dik wane li ma liggéey gis nga sama digganteeg yow nekkuma fi pour sa ay wax nii xam nga lii da di lu mënta sama digganteeg yow dama bëgg a taxaw pour jëf barke Serigne Salim ak gars yi gis lu leer loo taawee dëgër sa bopp nag la teg lu la góor ma sa tega barke Serigne Bamba te da di combat bi bëgguma digg tey firib bib de bëgguma firib bib dama bëgg a koos combat bi reef man ak yow ñu dem nga naani nga naani soow ma naani soow du ma la nee soow nga naan nga gën a deret ma gën a deret nga dem ardo dig ma dem ardo dig man ak yow nu koos ba xam ki gën a nekk mbayaar man ak moom yàlla may ko ndam maa ngi ñaan yàlla bu ndam sa kaw barke Sëriñ Bamba te incha rab yi damay am ndam si yow

yen ni mu wara beurel neena mi ngi ñew dal seen kaw waajal leen bu baax promoteur dama leen di lancer appel de leen ñew diko setti diko jox ay combat muy duggu ci lamb ji di beure di woné bopam sama gaay li la won fi la won ci pompier tay seen émission victoire après combat seen émission waajal combat avec Yankaw numéro 2 ma di joxat dik daje ba benen yoon ziar ziarat jaa ngeen def sama gaay